asalaamaaleykum mbokk internet Wassare News Dakar Midi Sénégal wala football bi si kanam à 18h à 19h contre Égypte mu nekk suñu troisième finale ñu naan ko football tey jii ñoo seex ko ñu seex Kouyaté def reportage ñu ngi leen di dal Wassare News Dakar Midi. waaw Dakar News fa la ñuy ñëwee yéen ñëpp ah di leen jàmm di la ko bi euh, yàlla na ne yàlla may fekkee et puis euh, yàlla may ni suñu vraiment euh, kontaan nañ quoi boo gisee ambiance bi am Sénégal actuellement nii nga gars préparé vraiment war ni carrément que ndam bi dafa war a ñëw quoi yàlla na yàlla moom incha allah. nan gisee mobilisation Sénégal yeneen l'équipe nationale. waaw mobilisation moom vraiment y a rien à dire quoi vraiment boo xoolee euh, mais euh, si si pays bi yëpp ah pays bi yëpp laa wax nii ah ni mobiliser xam nga ku mun ak ku munul yëpp mu ngi jéem bu ko defee xam nga Euh, joueurs yi nekk au niveau de Cameroun sentir ni que vraiment Sénégal ñoo seen ginnaaw quoi donc euh, je pense que l' essentiel mooy que gars yi football et puis wane ni vraiment euh, que Sénégal xam nga ils sont pour tout quoi waaw ñun ñoo seen ginnaaw quoi voilà. tey lan ngay bu fekkoon conseil entraînement lan ngay conseillé si mais rigueur et puis euh, gars yi war a jom fulla fayda te xam na ni vraiment cette fois ci xam nga coupe bi dafa war a ñëw Sénégal quoi parce que on en a besoin quoi waaw depuis lool xam nga ñu ngi koy chercher di ko wut xëy na tamit bon yàlla moom bu dogalul bul moom kenn mënu ko si dara mais vraiment cette année là doon ñaan yàlla moom coupe bi ñëw fi quoi te équipe bi moom ñun ñaan yàlla vraiment ñu def fulla fayda ak jom et euh, le reste moom ñu bàyyi si loxo yàlla quoi demee rek léegi. victoire bu leer naaj. dañuy teel dañuy gagné jël coupe. ñu ngi lay ziar. ana yàlla nangu ziar si yow. tur beeg sant bi. Malick Diallo dëkk xaar yàlla juddoo fi yaroo fi. tey lan nga gis si final. waaw final bi mooy euh, li ñu gëj a gis mooy ñëpp ànd nañ booloo nekk benn. est-ce que yaa ngi comprendre yéene ni ak yàqin ni am nañu yaakaar ni yàlla dinañu may ndam ndam te yàlla bu yaakaar na si incha allah. nan nga gisee organisation organisation autour de l'équipe nationale organisation équipe nationale ak euh, engagement bi. waaw tout le monde se sont mobilisés nag tey ren tey moom waxuma la démb. moi je suis taximan koñ boo dugg les gens sont mobilisés te defe naa ni ñoom ñi nga xamante ni ñoom la ñu yaakaar te ñu nekkal ñu fële. dara ëpp leen ci affaire parce que yéen a def seen liggéey di interview nit ñi di wax ak xol kon nag li ñuy wax rek mooy ñoom dañu nekk en notre place jeu bi tey du yomb xam nga naar yi ñëpp xam nañ seen football dañoo salte dañuy taxaw la mais ñun ak attaque bi bu ñu defee fulaak fay dans les premières quinze minutes ñu fexee dugal des démobiliser leen ñoom seen système de jeu après ñoom dinañ jéem a changé waat quoi mais bu ñam xaar seen bàyyi ñoo seen kanam nu ñu accélérer le maximum pour dugal bi quoi dañ leen koy ñaan. boo xaar yàlla na nan la nan taxawee. xaar yàlla gis nga koñ boo dugg ñëpp a ngi waaw dëgg yàlla ànd euh, suñu doom Cheikh Kouyaté euh, di wax ni nii nag actuellement c' est l' équipe qui gagne quoi on est derrière l' équipe suñu doom la. suñu fils la fii la juddoo fii la yaru fii ñu ko teetee moo booy yi ñu war a dóor ku ne taxaw nañu ko seetaan de tey yàlla ñëw ak moom la jël mais ñi ñëpp sont des yi nga ne ko xam waaw di ko wax def fulla ak fayda fexe ba ndam bi ñëw bi moom ak ay naataango yàlla mën na ko yàlla yàlla moo tëdd ci dara. ñaar jabar Cheikh Kanté ñoo génn deux heures. ah ñaar ah, jabaram. de boo gisee rek yàlla yàlla def ndam rek incha allah. soxla nañ ndam moom soxla nañ ko trop billaahi. ah si si teg lu mu tegoon rek yàlla baax rek bi ñëpp jàpp si. mu dem ci kanam quoi ndam rek incha allah loolu lañ gëm quoi waaw bu ñu lu ñu am rek dugal ko bu ñu leen may dara. ci yaakaar ngeen tey tey ren mooy euh, kii bi daal. non ren ren ren métti na instant nii xool yaa ngi féer final rek. coupe yow nan nga gisee Cheikhou Kouyaté engagement bi mu wane si ah, mu mën de na dolli rek gën a dëgër muy dal si nit yi waaw muy éviter carton yi tamit loolu laa am pour lu moom comme lu mu defoon bee paase rek tugg rek meññu benn gars yi zibilé Sénégal jëm kanam kese. waaw Ariane fekk su ñu indi fii ndam ñu zibilé ndoo defandoo lépp waaw kese. yaakaar nga ne ren dañuy coupe bi waaw ren loolu jarul wax sax loolu dañ koy jël. déception du am non am heure yi nii gars yi lu ñu wane nii ak commencement beeg yooyu noonu am nañ kii quoi am nañ confiance. confiance bu baax bu baax sax waaw. affaire moom day ñëw den gis ma lu koy teree ñëw waaw waaw incha